ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm ci bi ngeen ñëwee ànd ak ñun pour ñu fesal que ni mesure d'accompagnement yi ñu état jox pour yolomal nu ñu dellu ci suñu liggéey euh, ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jël euh, jël gi nag du ma ni matal nañ ko à cent pour cent mais jàpp naa ni au moins matal nañ ko à quatre pour cent parce que am nañu ay paanu raxasu yoo xamante ni si day am ndox bi day am eau de javel ak savon ordinaire am nañu aussi masque yi am nañu li nga xamante ni si mooy agent yi nga xam ne ñoo ñu war a accompagner que sa soit pompier ou service du jeune euh, ba ci infirmier am nañu am tamit euh, ay policiers yoo xamante ni si ñu ngi en permanent ci biir gare bi ñu ngi ci bunt bi euh, ñu ngi contrôler li nga xamante ni si mooy sart yi dëppoog yi ñu war a def pour mën a doxal suñu liggéey kon ñu ngi vraiment di lancer appel chauffeur si comme ni ñu leen waxoon woowoon nañ leen barki démb ci garage bi réunion xamal leen ni leen euh, Covid 19 bi kat jeexagu fi euh, xaj na coono yi nga xam ni moom la ñuy jànkoonteel moo tax ñu bàyyi ñu ñu jéem a delluwaat pour wutiwaat loo xamante ni si mën nañ ko dunde waaye nag nañu bàyyi xel ni am na loo xam ni dafa impacté wu ci enseignant bi loolu itam ñun ñu ngi ñaan yàlla yàlla na fi yem mais bu mu doon loo xam ni day tasaaroo waat ñu naan ci ñun la jóge kon chauffeur bu nekk digal nañ la nga désinfecté sa oto raxas ko ak eau de fexe ba am benn gel hydraulique boo xam ni day nekk ak yow clients yi aussi existe nañ leen masque ñëpp euh, ba nga xamante ni si tamit képp koo xam ni xool nañu gis ni ñëw nga muy catégorie oto bu mu mënti doon am nañu ay kii yuñ leen di jëlal yoo xamante ni si buñ xoolee seen ay filiation ci lépp ba ñu départ permettre tu leen tamit ñu mel ni ku nekk ci grand place wala ci marché dañ leen di tere wax ji Euh, permettre wuñu tamit oto bi di taxaw nga naan ma jël yóbbante fii wala ma jël yóbbante faa Touba nga jóge Mbuur nga jëm wala Thiès nga jëm wala dakaar amatul fooy jàdd ci yoon bi wala fooy taxaw ñuy wàcc ak di def yu demee noonu yooyu yëpp dénk nañ ko chauffeur si waaw euh, manifeste yi defe naa ñoo ngi ci mooy lii xaj na li ma wax ne am nañ manquement rek mooy thermoflash bi ñu war a jëlee température client bi te loolu defe naa président dina dem dès demain dakaar bëggoon nañ ko jënd mais dañu bëgg li nga xamante ni moom la état wax ni den nu ko jox ñu jëli ko mu doon euh, thermoflash yoo xamante ni si yu wóor lay doon ndax loolu moo des ci kii bi rek muy observation test kii bi euh, température bi mais noowu client bi ak adresse am ak téléphone am ak destination am yëpp fi mu ne moom ñu ngi koy jël tey jii nga xamante ni si tàmbali nañ sànq si tableau biche dem naa fa maa ngi gis benn waaye di laaj benn waay naan ko est-ce que yow dara dalu la donc kon lu mel ni lii nga wax la seetlu ci moom mais da ko ni dara dalu ma vraiment gisuñu daal benn client boo xamante ni si euh, am na problème ñoom it wax dëgg yàlla ñu ngi takk masque gisuñu fi benn client boo xamante ni si takkul masque. client bu ñëw takkul masque exceptionnellement ñun ñu la wutal masque fii ndax euh, ci euh, proposition yi état defit ci liñ ñu war a jàppale. Euh, wax nañ ni am nañ deux cent mille masques yoo xamante ni si war nañ ko séddale groupement yi ñu ci saluer de passage ku mel nii Basirou gay mii ci sama ginnaaw lim fi indi tey pour jàppalee ko président Idika defe naa ne ay masques la yoo xamante ni si war nañ ko libéré loolu aussi ñu di ci jàppale clients yi nga xam ne exceptionnellement dinañ fi accepté yoruñu masque. waaw loolu moom dama yaakaar ni ñetti téeméeri masque yoo xamante ni si daf ko indi euh, defe naa ni mi ngi nii ci mbuus bi kii yor. yi ñu ci génnee ma ngàbb ko mi ngi nii ci sama loxo ñu di ko ci remercier vraiment moom it ndax domp ci sot la bokk te vraiment mel na ni li may wax rek suñu secteur daal ku ko génne ci suñ développement réew li ngay manqué dina bari donc kon du secteur bu ñu war a caaxaane non feebar bi moom dañuy ñaan ci màgg yàlla ak mbaaxam parce que du ñu ni du ñu ko tasaare mais ñaanuñu ko yàllaa tasaare bu fekkee mesures yi ñu santaane respecté ko rek mooy tax du tasaaroo mën nañ ni du tasaaroo waaye nag dañuy delloowaat suñu xel ci waxi suñu sang bi rek di Serigne Touba Cheikh Mountakha li mu wax ni mbas la mu yàlla wàcce ci àddina bi ñu jot ci suñu wàll ñun Sénégal kon nañu am yar rek ak teggin te kenn bañ koo jiñ sa morom te ñu jël mesures yi nga xamante ni si moom lañ nu sant. nit daal bu jógee tege ci aw yoon jóge ci dëkk dina dem ci dëkk ki nga xamante ni si daa jaar ci ñal nag kooku démb bi ñuy waxtaan ak chauffeur si posé nañ question ki yooru ki yooru engagé wuñu ki nga xam ne daal daa départ ci gare routière bi vraiment moom la ñu mën a. Euh, engagé wu ci mesure barrière yi nga xamante ni si moom lañ nu sant